Bolde Bolde si loo ne. maa ngi di sant yàlla. dafa mel ni da nga lëmbe simple bi nag. lëmbe simple bi mooy lan maa liggéey def fa laaju wàcc lëmbe ba simple damay ñëw di daanu di ñibbi rek. Ah, waaw daanu waaw. sa premier jour nga wàcc. arène Adrien sa digganteeg Boylo. sa sa avant Boylo. da nga quart de ku ñuy wax euh, rakku rakku ñang bi. xam waaw waaw waaw kooku sama waay la. saabu naa ñoo ñëpp sama ay boyloo moom sama waay la sama waay la yàgg dañoo waaw sama waay la. foofu quart de finale ñàkk. ah. quart foofu ñàkk. demi finale foofu ñàkk. waaw sant yàlla rek yàlla rek a mën yàlla xaju rek mënuñu dara dañuy compétir rek. nga dem Diofior diggante ak Dame Sène. waaw gis nga lu daan ma. day sant yàlla. benn yoon boobu. keroog nga ñàkk gaal gi dawaat dem si all bi. waaw noonu la dañuy dem rek compétir rek la ñuy def compétition rek la ñuy wut. sa ko bële lamb dóor kese. non ku xam-xam ne xaaru ba lamb dóor kese yàgg naa xaa def waaw. Zago fan la jëm. gannaaw bi nga jógee sa combat arène foo jëm. gannaaw bi nga jógee foo jëm. non maa fi ma nekkoon ba léegi rek. comme ñan. lutte simple bi rek. waaw <laughs> avec frappe am na ñoo xam ne seen nataangoo lañ. waaye li affaire frappe bi mooy loolu gars yi mooy loolu ñu ngi wax rek xaw ma sax mais gars yaa ngi wax rek. xaar nañu nga defaat retour. di ñaanal booy Jules ndam lu rëy. Boy Jules nañu si Boy Jules. kon ñu xaaral Jacob Baldé defaat beneen retour. moy laat lan damaa génnoon ci làmb génn woon ci làmb. da ngaa jógee defet da ngaa jógee defet. defet du dara defet defet du dara. loolu say naataangoo na mën a xam. man maa ëpp adversaire ci làmb ñëpp samay adversaire la. tey ñu ñëw fekk waaw di ko ñaanal ndam moom moom yaa ma gën a xam su ñu ñemee affaire bi ba koy def moom si la bokk. moo la motivé ba tax tey nga nekk mbër. waaw tàggat nañu ci lu bari sax dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm rek. mais ngeen fourrière waaw ah, fourrière xam nañ ko bu baax. xaw a bu baax a baax moom xam na. fourrière waaw damay jox boy zil kele bi rek. waaw oh, moom laa loolu laa tax ma bëgg a ñëw nag. ci kër gi. jëlewu fa lu ko deex te du fi jëlewaat lu ko deex waaw. li mu jëlee woon dafay jëlewaat. même chose. waaw du deex bu xeexee. ñu dóor ko bu daal su bëri daal ko incha allah. da ngaa asaway waaw booy zil lépp moo koy gérer. kenn du ko conseillé si làmb. waaw. kon sax moom jaam rek lañ koy.